asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki Sénégal mbokki département de Tivaouane euh, lu tiis nag moo xewati fii ci dëkk boobu ñuy wax cànd mooy dëkk bi leen doon wax naan dañ faa rayoon benn xale ba pare tabbal ko ca teen ba dëkk boobu nag même kër gi même maire bi démb ci guddi dañoo fekkaat ñu jàppaat benn magu xale boobu noonu bu jigéen jamate ko ba nu sapeur évacué ko yóbbu ko fi nga xamante ne mooy hôpital moom Abdoul Aziz Dabakh tey bi ñu xëyee xale ba faatu police ngi noonu nag ci dëkk ba di def li nga xamante ni mooy enquête bi ndax nag lii tiis gu metti la ci génn kër ci benn dëkk ci benn maire tiis bi dal ko ci doomam bu am ñetti at bu góor lii dalaat ko ci doomam bu jigéen boo xamante ni ci juróom-ñaari at lay war a kon nag mbokk yi lii lu metti la tabarkal nañu ànd ñu ñëpp cànd jaadu na nag fi mu nekk ñi ñu def ci taxaw seetlu bu am solo ndax nag li nga xamante ni mooy xewoon foofa ca cànd xewaat fii nga xamante ni mooy mooy cànd ci benn kër gi ci benn dëkk bi ci même nit ki loolu diis na kon mbokk yi mu ngi noonu tey loolu lañ leen nga xamante ni mooy euh, cànd euh, ci benn quartier ci Tivaouane euh, la daloon ndaw soosu ci doomam boobu amoon ñetti at tañ tàbbaloon ko ca teen ba ci benn kër gi moom la li dalaat mooy euh, magam bu jigéen bu am juróom-ñaari at moom lañ fekk démb ñu jamat ko sapeur pompier jël ko yóbbu ko fële ci hôpital maam Abdoul Aziz baax euh, médecin yi nekk ca di defar waaye tey bi ñu xëyee dañoo fekk mu faatu euh, loolu nag di lu tiis loo xamante ni dañ woon nañ leen koy yëgal incha allahu rabbi police mu ngi ci enquête bi leneen loo xamante ni am na ci d'ici suba wala ginnaaw suba dinañ leen indilaat information yooyu alxaaji Mbégi jub ak Mame Ndokh TV fii ci Tivaouane ci cànd ci dëkk boobu nekk ci euh, euh, deux kilomètres de Tivaouane boo génnee di dem fële nga xamante ni mooy Touba Toul foofu la dëkk bi nekk alxaaji Mbégi jub ak Mame Ndokh TV ñu la dema leen fële ci cànd jërë ngeen jëf